auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci juróom benn fukkeelu jataay ak juróom-ñett ci téereb xalimag leer te muy jataay bi mujj ci jataay yi moo téere bi xaside gi nga xam ne ci lañu mujj a dikk muy xaside jaawartu moom it moo tëj mboolem xasida yi doon waxtaane tëj te gi nag mooy wax tuuti rek ci xasida cant yi liñ ci tënke dañoo wax ne ginnaaw bi xasida ak jeexee dañoo wax ne fii lañu yemale wàllu cant gi xasida cant yi moom nag mooy wet gi gën a yaatu ci xasiiday Sëriñ Tuubaa yi jox da jot nañu cee dajale lu mat juróom-ñaari diiwaan yoo xam ne la ca nekk toll na ci junneeg ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ñeent ci ay xasida 1284 cant yi ci la sëriñ bi gënoona baril ab soññeem ci yeneen yi mel na ne bu nu seetloo xasida yi mu daan soññee ñu jàng ko ak daa ko digle yu ci bari xasida yi cant la yu ci bari mooy yu mu bind ginnaaw ak dellu seem ci ba ñëw gànnaar ba ni ñu ko noppee gis dégg naa ci sëriñ Mudu Maamun Ñang mu wax ne sëriñ Moor sax na daa bokkoon ci mag ñi nekkoon ak sëriñ Tuubaa lu yàgg bi sëriñ bi làqoo ba ñëw Tuubaa ñu dénk ko barabu sëriñ bi moom sëñ Mor Soxna sëñ Mor Mamoul Niang nee ne daa am bis mu ànd ak baayam sëñ Afe Niang ci sëñ Mor Soxna nee ne sëñ Afe di waxtaan ak sëñ Mor Soxna ci diwaani xaside yi ku nekk di ca wax kéemtaan yi yi yi la ci Sëriñ Tuubaa wax euh, Sëriñ Mor Soxna wax ne man de dégg naa ci Sëriñ Tuubaa mu sama xasida yi nga xam ne moom laa def bi ma nekkee ci géej gi ak bi ma jógee ci géej gi nga xam ne boo koy seet ay xasida cant rek la doo gis ma ci ñaan dara doo ci gis ma ci jàmba dara lépp lu ne rek danga gis ma naan yàlla may na ma nangam yàlla defal na ma nangam yooyu de moo gën a kawe yi nga xam ne dañ ciy wax may ma nangam ak defal ma nangam ndax yooyu dina aajowoo fas ak tudd ci làmmiñ yii nag maanaam xasida cant yi aajowoowul fas aajowoowul tudd ci làmmiñ boo waxee rek li ci lëmu lépp di nga ko am sëriñ tubaa tekki na ba tey si mun moomu ña ngay nettali waxee suñu mor soxna mu ne sëriñ tubaa tekki na li ci gën a gaaw sax koo xam ne nii yor nga ci lu mat diwaan ci xasida yooyu nga def ko ci sa kër képp jàngoo ko defoo ko dara itam doy na xijaab maanaam xasida cant yooyu la sëriñ tubaa wax ne ku ci dajale lu ma diwaan naan dajale yenn xasida yu xaw a tàkku bàyyi ko ci sa kër képp doonte jàngoof nga xam ne ci sa kër képp la nekk doy na xijaab xijaab nag mooy kaaraange baaraas boo xam ne ni day nekk sa digg ak lépp looy ragal ak lépp looy loo xeetu lor kon mbokk yi noo ngi sant suñu borom mi nu kàttanal ba binu téere bi ci taw fee xam kook jàmm muy xaaj bu njëkk bi di ci jaajëfal eh, sëriñ Touba moom mi nu wan yoon wu leer wu nu jaar ba mën a def liggéey bu mag bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mboolem li weer su ci jataay yi mën ngeen koo topp ci chaîne youtube As-Samadiyya mën ngeen koo topp ci sunu euh, canal telegram yaatal njàngalem Serigne Touba waaye man ngeen koo topp ci euh, podcast euh, bu iPhone boo bindee xalim leer rek yëpp dana génn audio yi téere bi lépp mu ngi toll ci juróom-ñett juróom benn fukk ak juróom-ñett 68 kon noo ngi leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.